Sénégalactu.com asalaamaaleykum mbokk mbokki Sénégal Actu asalaamaaleykum eh, yéen ñi ñuy déglu ci internet bi yépp Seydina sek mu am mbégte ak bànneex ñewat ak yeen seen émission ëttu xam-xam tey nag ñu fas yéene waxtaan ci walum jabet ak koor amna ci nak ben spécialiste bo xamanteni ni euh, mom la wax Martin Carvalho di euh, di diabétologue feulé ci Marseille lu ñu nak lo xam-xam demba ma demba gën la xam demba docteur ñu lay nuyu dila dara dala fi ci sénégalactu point com. ngi di nuyu yeen tamit euh, di rafetlu tamit euh, émission bi ngeen ma teewal ni pour ñu wax ci affaire u jabet ak euh, ci weeru koor gi surtout que weeru bu la maa ngi vraiment souhaité tamit sama mbokki sëriñ yëpp ak tout la umma islamique vraiment ngeen am weeru kooru jàmm te yàlla ñaan euh, kii nangu ñaan yëpp ko hmm. waaw jërëjëf yow tamit ñi ngi lay ñaanal xam naa ni sax yéen tamit pare ngeen ci mais wax dëgg yàlla nekk nga koo xamante ne tey jii muy événement bu jot di nga yónnee sa xaritu julli yëpp. di la yone message ñaanal leen jàmm mu nekk yow tamit ñu lay ñaanal jàmm bu baax ma ci profito aussi di ñaanal euh, sénégalais yëpp jàmm di leen balu àq tamit di leen bal àq te xam ni wax dafa métti da ngay toog atu yàlla di wax am na ñooy blessé tamit ñu ngi leen di baalu àq bu baax a baax a baax di ñaan yàlla koor gi ñu dugg si bismillahi rahmaani rahim tamit alhamdulilahi rabbil alamin di ñaan ci aussi yàlla mu nangu suñuy julli ak suñuy koor yëpp tamit di ñaan yàlla mbas mi nga xamante ne tey jii moo nekk ci àdduna bi yàlla teggil ñu ko ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam docteur tey boo ñu doon wax yaay kan loo ñuy wax. ah man doomu Sénégal la hmm. doo Sénégal màggee Sénégal. Hmm. jàngee Sénégal am ba def sama diplôme mu médecine. Hmm. ñëw fii Marseille nag pour def sama spécialité wu euh, endocrinologie. ñu gën ko xam nag ci affaire u parce que diabète moo gën law. mais voilà spécialité bo xam ne day top vraiment beaucoup de de de choses ci affaire hormone yi daal. Hmm. voilà. deug la tay euh, docteur ñu choisir thème boo xamante dañ naan diabète ak corps waaw tay diabète ko am diabète and nak mëna wor waaw certain du du ñi am diabète yëpp ñoo mënul woor. Hmm. d'accord ñi am diabète fu mu ne nii am na ñoo xam ne mën nañ ci or. Hmm. surtout ñoo xam ne ñoom dañuy yore ay comprimé rek ñoom ñooñu mm. mën nañu or du am problème mm. mais ñi ci amee ay insuline ak yeneen mm. day gën a jafe tout parce que dañu amee insuline rek moo tax lu ñu woor c'est parce que tout simplement duñ leen conseiller parce que day day am ay ay jafe-jafe yu ci nekk parce que nit ki am insuline normalement bon mun nañu ne bon su suy suy piqûre ñetti yoon wala ñeenti yoon mun na piqure rek euh, période boo xam ne mu ngi lekk mais sauf que euh, diabétique bi moom ci wàllu boppam. Hmm. dafa am ay complications yoo xam ne su toogul tu naanul. Hmm. à ce moment là day mun na am jafe-jafe ci biir yaram bi parce que xam nga nit soo toogee naanuloo. Hmm. par exemple de quatre heures du matin ba ay ak été bi di ñëw nii donc balaa euh, naaj bi di tëdd. mën na yàgg et mun nga am par exemple pendant dix ou quinze heures de temps yoo xam ne. dara dugg sa dugg sa yaram donc à partir de ce moment-là hmm. mën nga am ay problème par exemple ay ay ay jafe-jafe ci maanaam euh, ki sa santé bi parce que yaram bi dafa laaj ay ndox am ndox bu koy bu koy buy bu dugg ci yaramam hmm. pour que yenn fonction yi organes yi sax amam ñoom ñëpp mën a fonctionner moo tax boo xoolee bu baax koor gi tam du yàgg d'accord hmm. donc parce que sinon complication yi yi nekk ci hmm. euh, vraiment euh, loolu moo tax que par exemple borom euh, borom ñi ñi di ñi di piqûre. Hmm. ñu len di jëm a ne dal su ngeen ko mënee bu ngeen ko mënee mënee éviter. Hmm. pour baña or mo ñuy gënal parce que nit ki su naanul. day am mën na am ce qu'on appelle état de déshydratation. état de déshydratation boobu nag baaxul parce que à ce moment là deret bi dootul fonctionner dootul circuler normalement. te su circulé normalement nag mun na crée yenn saa ay kayo et kayo yooyu nag mooy mm. indi problème mu mu mu fatt euh, euh, artère bi di mooy tuyau bi di yóbbu deret bi ci biir mm. benn organe et jafe-jafe yi mën na commencé am loolu mm. moo tax ñuy jéem a éviter pour nit yi am nu mu koy waxee ñuy piqûre à l'insuline ñu jéem leen éviter loolu comprimé pourquoi mo gëna facile parce que nit ki même sous parce que même problème bi la ah, bañ a mm. naan ndox ak baña lek mais sauf que nit ki par exemple di am comprimé mm. euh normalement c'est des gens yo xamné des déjà da ngeen wax bu mën wajé ko seen yaram mm. d'accord donc ñom suñu wara jël sen comprimé mo nañ ko jël euh, bu ñuy bu ñuy xëdd ak bu ñuy koor tu vois alors que keneen ki mom nga xamné mom dafa ré am insuline normalement saay su nek dafa wara def insuline am saay suy lekk d' accord hmm. donc moom su lekkul mun nga mën ne ah waaw lekkul suba donc du def insuline lekkul midi def insuline lekkul ngoon si def insuline léegi suy suy dog mun na mun na def insuline mais c' est que hmm. mu waajooju ñeent ñett wala ñeenti insuline lay am normalement par jour hmm. léegi su deful insuline am yooyu te xam ne insuline boobu moom mooy tax jabetam taux de sucre am wàññeeku su ko deful risque lay am mooy taux de sucre bi day yéeg tout ce qui bi su yégué ah problème dina am. Hmm. parce que complication yi nek ci lolu ci ginaaw mom moy tax ne waa na def coma. Hmm. te coma bobu du gaaw su nekké lo xamné nit bo xamné la ay garab lay jël ay comprimé rek lay jël. Hmm. loolu moy différence bi entre diabète de type 1 mo xamné diabète insulino dépendant ak diabète de type 2 ño xamné moy diabète euh, voilà non insulino dépendant ou diabète gras ñoom ak comment ay comprimé nañuy jël rek te ñoom nañ leen wax ñu mun a wàññeeku hmm. à la limite ñu def koor gi sax à la limite daf ñuy arrangé hmm. mais ci kaw ñu am tamit ay euh, ñu ngi koy waxee def attention ci ñu ñuy lekkee hmm. ak nu ñuy nu ñuy nu ñuy doxalee seen koor tamit parce que xam nga koor gi ne sax boo xoolee bu baax <laughs> nit yi dañuy lekk trop ci ngoon si gëyee déeg jawen yi de bu ñu bu ñu ndogee day mel dootuñu xamatuñu kii suur merci donc loolu jaaduwul parce que boo xoolee euh, traitement au diabète premier traitement au diabète mm. c'est essentiellement ngay xol nga am euh, lek bu sel mm. d'accord ak euh, yëngal yëngal tout sa sa yaram mm. et tang ko nak bo xolé bu baax gars yi duñ yëngal seen yaram de gars yi dañuy teud rek jàpp <laughs> am tan ñoo xam sax dañ ci jël congé nek ci kër gi <laughs> rek <laughs> voilà nek ci kër gi bañ a def dara waxuma len ñu daw waxuma len parce que tu vois parce que lekku ñu mais euh, mën nga par exemple euh, def say corps par exemple ay boru une heure de temps bala dog bi di yegsi mën nga dem dox hmm. tu vois comme ça yaram bi bouger légui euh, nga am ce qu'on appelle une dépense énergétique légui à ce moment-là bo ñewé di dog d'accord hmm. da nga wara a dog tamit tranquillement parce que bo xolé bu ñuy lek lek bëri hmm. après nuy def doo nelaw sax bu baax parce que sa estomac dafa fees d' accord sa biir bi fees na te doo lekk bu baax te léegi da ngay fër booy boo yeewoo pour quatre heures du matin. Hmm. déjà booy xool ban heure ngay tëdd pratiquement ay vingt trois heures minuit. quatre heures du matin nga war a yeewu. digestion bi entre temps deful correctement léegi soo yeewee quatre heures du matin luy qu'est-ce qui se passe doo xiif. Hmm. doo xiif donc looy da ngay naan da ngay naan benn café nga nga naan ay kii rek voilà mais loolu nag. du la hmm. téye toute la journée alors que soo lekkee tranquillement assez légèrement nga toog ay sa nga lekk ay ay un petit bout de protéine nga lekk xam nga. Mm. Euh, nga nga nga saaf sa ñu euh, nga passer au grill. ce mm. sa jën xam nga. Mm. wala quelque chose de très léger d'accord. et boo paree loolu boo quatre heures du matin noo def nga xiif ala la nga xiif. lu nga waroon lekk ci guddi si loolu mm. moom ngay tàngal moom ngay ndekkee mm. c'est-à-dire que à ce moment-là fonde yi laax yi foofu la war a daw d'accord ñoo xam ne sax mën nañu bugg lekk cere sama mbokk séréer yi mm. ceeb ak yooyu foofu nañ ko war a lekk pourquoi parce que à ce boo ko lekkee loolu dina la tëye ba ci ngoon alors que boo jëlee benn kafe ah doo dem parce que ay boru 11h midi ya ngi commencé xif ya ngi commencer xoss soy liguey soy liguey sax do productif. doo productif. Mhm. kooku c'est clair voilà. Ah. kon docteur ba ñu fa fàttali ba tey euh, maa ngi fii dalal euh, docteur Marte euh, Carvalho di diabétologue te buñu déssété desete ba tey ci walu fièvre bi di di diabète kañ ngay mën wax ni nit ki amna diabète. ah kooku mom définition internationale la. du hmm. définition Carvalho définition keneen. Hmm. kooku définition kii euh, kii euh, euh, OMS la. Hmm. OMS dafa ne pour nga ne nit ki dafa diabétique. Hmm. foog ñu dem defal ko prise de sang. Hmm. prise de sang laa wax de wax mu mu jam baaraam yi kii ki kii kii baaraam yi rek. prise de sang. foog mu am deux prises de sang yoo xam ne buñ ko defee à jeun. c'est-à-dire que du ba lekkagul dara su demee laboratoire. yoo xam ne pardon. combien d'heures ngay toog doo lekk. non boo ko boo gëdee boo lekk boo reeree rek kay. Hmm. balaa ngay balaa balaa lendemain matin doo ndékki nga dem laboratoire ñu defar la sa ñu ko waxee ñu defar la sa prise de sang. Hmm. donc au moins huit heures quoi boo de minuit daal. Hmm. war waratoo lekk dara dara nekk ki sa ki sa ki sa lam ki sa gémmiñ quoi. su boobaa. boo boo demee nga am plus de un gramme vingt six. un gramme vingt six à deux reprises ñaari yoon. ah su nag ñu ne. waa dafa diabète voilà hmm. mais so amul lolu hmm. wala nga tok ci bir euh, n'importe quelle heure de la de n'importe quel moment de la journée hmm. ñu né à ce moment là pour dire par exemple ay boru quatre heures ak yoy mu nga jël nga dem def prise de sang bu ëpp su 2 deux grammes rek ñu ne ah kii nag moom diabétique na voilà ñaari définition yooyu mo am dal soit deux glycémie à jeun ñaari yoon à jeun au-delà de 1 gramme 26 ou mm. égal à 1 gramme 26, mm. ou bien deux heures après, après le repas, mm. c'est supérieur ou égal à 2 grammes. D'accord. Ce boba, ñu y a une diabétique na. yan yan conséquences la diabétique bi a si kooku nag moom moom problème bi xam nga lu <laughs> uh-huh. parce que diabétique bi. mon diabétique mun na jabet sax te du xam ndax sax ndax ki jabet na. yenn saa yi day gis dafa sonn rek du nelaw bu baax wala du efficace. Mm. xam nga yaram bi sonn mu am tawat. Mm. bon xam nga rek nit yi suñu mbokk yi ñoom danañ ne a ah, damaa sonn. wala mm. dama doon liggéey lu bëri ainsi de suite. mais problème bi mooy c'est que tant que xamagul que diabétique na. déjà du ko jël en considération am na ñoo xam ne sax xam nañ ko diabétique nañu. Hmm. du ñu xool recommandation yi leen yu seen euh, docteur euh, jox leen. Hmm. lu tax mu metti parce que diabétique bi dafa hmm. mel ni yow man amuñu dara du sentir dara. tout ñoo xam ne ay ils sont euh, de type deux. du sentir dara sauf que nag léegi suukar googu. nekk seen biir yaram. mu ngi liggéey liggéey lu bon. parce que day num la ko waxee sànq suukar gi. Hmm. Euh, schématiquement day accumuler su dee ba ëpp. Hmm. day transformer wu en graisse koku mom ki yaram bi la koy ki cellule yi ñok ñoo koy job non hmm. parce que day ëpp ba tuuru bu ëppee ba dem ba bari nak légui léegi day wu en graisse. graisse boobu nak ak suukar bi ñoy dem tafu ci artère yi. mu yi moy espèce su canal yooyu xam ne dafa mel tuyau rek tuyau boo xam ne boo ubbee sa robinet. Hmm. tuyau bi xam nga day jaar pour effectivement évacuer wu. Hmm. léegi tuyau yi. Hmm. imagine toi léegi dafa fees euh, sucre ak gras. benn exemple rek laa la ci mën a jox xam nga balaa ñuy invité euh, inventer pardon ay machine à laver ak yooyu. dañu doon no boo xoolee bu baax suñu yaay ak yooyu dañu doon dañu doon ñu koy waxee dañu doon raxas ndab rek. d'accord ci évier ak yooyu. mais boo xoolee en un moment donné tuyau bi dafa doon bouché. lu tax mu doon bouché graisse bi. Imaginez da ngay imaginer hmm. tuyau boobu bu nekk say ci biir yaram hmm. graisse bi ak sucre bi bouché artère boo xam ne artère boobu moom indi bi ci bi bi ci xol bi bi ci cerveau bi deret bi ci ci ci koy ci ci ci yi bi normalement hmm. xëy na dévier a mais Euh, vitesse bu noonu jaaree. du ko hmm. mën jaarati parce que day am ralentissement dafay mel ni bouchon ci autoroute. Hmm. à ce moment là luy xew c' que beneen partie boo xam ne foofu la deret bi waroon a yegsi. Hmm. ba nourrir cerveau bi. wala ba nourrir ñu ngi koy waxee xol bi. wala bët bi ak yooyu organe boobu dootul recevoir deret bu mu waroon recevoir normal. su waroon recevoir cent pour cent xëy na mu ngi recevoir léegi trente pour cent. xam nga à ce moment day am défaillance. loolu mooy indi parfois ñu naan euh, ñuy ñuy wax ay problème mu bët aussi si diabétologue yi ay problème mu impuissance sexuelle ay ay problème yu bari bari. Hmm. loolu yëpp la boo jëlee benn exemple dafa yomb dafa mel ni nga jël benn ci nga jël euh, jël benn plante nga amee benn plante sa sa biir kër wala même sa biti euh, boo koy arrosé. Hmm. plante bi day def fleur. la léegi soo ko arrosé soo arrosé tuul lu bëri plante bi plante bi lu muy def.

donc léegi moo tax nit yi def AVC. Hmm. ah jabet moom garaaw na di. mais lan lan mooy saafara jabet. ah <laughs> saafara de mooy problème bi mooy mooy <laughs> sama Seydina. Hmm. problème bi mooy d' abord dans un premier temps. Hmm. mooy def attention luy nga lu sell mooy moo xam ne lu nekk sa sa ki dugg sa gémmiñ ak sa biir. parce que dañuy ne euh, nit yi dañuy confondre dañ ah dama diabétique damay foog ma bàyyi sucre munoo bàyyi sucre parce que benn gis nga ci àdduna bi lépp yëpp ah. lépp suukar la. suukar la ndax rek moo amul suukar ceeb yeeg yëpp suukar la. ndox rek moo amul suukar te xam nga mënoo di toog di naan ndox rek matin midi soir. Mm. <laughs> comme noonu ma koy waxee sama patient yi. Mm. boo tàmmee di naan ndox da ngay finir naan ndox rek te lekkuloo dara da ngay finir par lyophilisé lyophilisé c'est-à-dire que <laughs> da li nga mujjee wàññeeku. Mm. parce que tout simplement ba ndox rek ngeen naan. donc mënuñu tere nit yi bañ a lekk suukar parce que boo jëlee mburu bi suukar a nga ci. boo jëlee cere suukar a nga ci boo jëlee meew sax suukar a nga ci. boo jëlee voilà euh, ceeb suukar a nga ci donc mënoo def leneen. salade sax am na sukkar salade légumes yi sax am nañu sukkar donc xam nga mënuñu leen tere. Hmm. donc léegi diabétique ki bu njëkk na doon ne waaw da ngay lekk ba juróom benn kuddu euh, ceeb ak yooyu non kooku passé nañ ko. Hmm. boobu yooyu passé nañ ko bu yàgg léegi nit ki. Hmm. mën na lekk mais dafa war a lekk un peu de tout lekk bi. foog mu indil ko ay ce qu'on appelle ay protéines donc foog mu am ay yàpp ay nen. ay jambon ay poisson. Hmm. ay yoxos les fruits de mer yooyu protéines protéine la lu baax la d' accord. Hmm. Faut mu am tam ay légumes légumes yi dañu am sen dañu am dafa am solo parce que hmm. légumes yi dañuy ils sont riches en fibres. donc fibres yoy nek ci biir légumes moy ay espèce su fil tu vois Bon par exemple boo lekkee ay salade am nga ay fil so lekkee yenn fruits tam am nga ay fil yu nek ci biir. dañu am salu ay haricots verts ak yooyu yëpp dafa am am ay fibres. gis nga fibres yooyu seen rôle dafa dafa dafa dafa seen rôle dafa doy waar te dafa baax ci dafa baax ci ci nit. Hmm. parce que légumes yooyu am nañu benn rôle si nga fibre yooyu dafa mel ni pelote de laine boo am rek. Hmm. day récupérer sucre bi yëpp boo xam ne kii un peu annexé daf koy wóor. ok denc sucre bi à l'intérieur di ko diffuser nag lentement. Hmm. si nga fibre yooyu dafa am ab dafa c'est très intéressant aussi ci suñu digestion. parce que day faciliter digestion bi. moo tax doo constipé. mais yan yan yan genre légumes lañ ci gën a taamu. ah xam nga li mel naa la salade légume betterave carotte yooyu yëpp baax na. ok yooyu yëpp baax na légume boo jël baax na. Hmm. waxuma nag nga naan nga lekk nga lekk kilo carotte <laughs> parce que dafa bëri sucre dafa am suukar tamit. ah am na gars yoo xam ne dañuy xër il faut nga leeral leer xam nga géej jawe ni moom loo leen wax day leer. <laughs> c'est que xam nga man. Hmm. moom lay wax souvent il faut manger un peu de tout. Hmm. de tout un peu. même hmm. su nekkee da nga bëgg a ceeb ceeb ceeb ceeb da ngay jël benn assiette sa hmm. benn assiette nga ne bon moitié bi damay def ceeb waxuma oh, hmm. la nga jal ko nag beneen moitié bi nga ne damay def léegi beneen moitié bi nga xar ko en deux nga xaaj ko en deux benn bi nga def protéines yi mooy tout ce qui est viande suñu mbokk sénégalais yi nag ñoom yàpp xar ak yàpp ci yooyu bëgg nañ ko bu baax mais nga yàpp la viande viande rouge il ne faut pas en manger souvent il faut en manger l'équivalent de deux fois par semaine. ok viande rouge parce que viande rouge. ne fait pas des graisse. c'est mhm. la viande rouge c'est toxique aussi parce que c'est pro-inflammatoire. Mhm. alors que viande blanche. il il y a pour guinard, pour ginaar il y a pour xam la mhm. viande blanche. lu baax là. d'accord jën. lu am solo il gis que luy génn ci il y a vraiment moment où may nañu ko quoi. baax la. Mm-hmm. waaw les pour les tout ce qui est ay fruits de mer yi daal joxos ak yooyu daal gis nga crevette ak yooyu daal. Mm-hmm. ay huître mool ak yooyu daal yooyu bu ngeen ko mënee. parce que du mm-hmm. ñëpp ko seen loxo ci ginnaaw su ngeen ko mënee daal loolu moom bu ngeen ko sàggee. waaye ginnaar ginnaar moo gën a yomb xar kat. waaw ginnaar moo gën yomb xar mais xam nga gars yi rek ni ñu bu ñu reerul xal rek rek rek lekkuñu. dëgg la <laughs> am na solo. waaw dugg dugg dugg seen dibiteri yi ah, di saaf rek. waaw di saaf rek. <laughs> alors que dafa bari bari yàq rek. voilà alors que yooyu yëpp. Mhm. yaa ngi fay sa xaalis. te lu ngay lekk lu ngay dugal si biir. mu ngi lay indil ay jafe-jafe. donc lekk bi. Mhm. lu am solo la. mais xam nga nit mënoo ko tamit limité ci lekkam. waaw parce que nit nit la rek. day métti de. voilà day métti moo tax man ci côté na ne ah lu d'accord hmm. bañ parce que boo lekkee ba fër tamit ah xam alors que diabète bi traitement essentiel du diabète en dehors alimentation bi hmm. c'est nu bouger la nga jug di daw parce hmm. que du ñëpp mënuñu daw mais vous nga yàlla may na la ñaari tànk. Hmm. pour dox la du pour toog suñu su su bëggaloon ñu dox yàlla du ñu jox ñaari tànk daf ñuy jox ay loxo rek. Hmm. biir bi ñu yem foofu mais xam na que suñu tagul tànk ah dana métti de parce que à ce moment-là danañ grossir. Hmm. <laughs> donc moo tax mu dagal ñu ay tànk. tànk yi nag pour ñu utiliser ko pour dox. ci grossir boobu sax laa bëggoon ñëw euh, dogguma la des dañuy gis nit ki. am yaram am yaram ñu ne kii dafa jabet mu jékki-jékki gis nit ki jeex jeex ñu ne dafa jabet pourquoi loolu c' est parce que tout simplement nit ki bu amee yaram. Hmm. Euh, problème bi yëpp mooy c' est que fekk euh, dafa bari graisse. Hmm. te graisse boobu ci biir graisse boobu euh, ay jafe-jafe yu bari daf koy indi parce que graisse boobu moom la ko waxee sànq. jafe-jafe yi ñu wax sànq. day indi ay problème mais boo xoolee suñu mbokk yi. Hmm. balaa ñuy. mais nit ki de kii eh, eh, ni oh, de am na xaalis de waa de mu ci ay <laughs> mu ngi ci donkaa sigéew boobu mi ngi a dee fekk mu ngi bëgg dee mhm. boo toogee ay yenn saa ñu ngi la ah kii de moom def na fi arrêt cardiaque wala kii de def na fi infarctus mhm. mais ñaanal ma ko kenn nag balaa loolu nag dana ci fekk mhm. lekk bi nu mu neexee neex balaa loolu yëpp di fekk à ce yow soo lekkee ba rekk sax d'accord noppalekul mais à un nga dem dox pour éliminer lu nga soog lekk nii. Hmm. dox waxuma nag dox nag di doxantu parce que kooku entre dox ak doxantu du benn. dox différence bi mooy doxantu xam nga yaa ngi <laughs> yaa ngi teg benn pas devant l' autre. Hmm. <laughs> yaa ngi waxtaan ak sa jeeg ngay di doxantu. Hmm. d' di jël air waxuma nga dem jëli air man lu mu la wax mooy nga jël say basket. d' accord jël say équipement di waaxu. Mhm. parce que waxu bobu moy tax ne que muscle yi. Mhm. di chop, di chop sucre bi. Mhm. parce que muscle dafa soxla sucre pour activer wu. D'accord. te nu ngay waaxoo nonu ne la sa biir bi di wàññeeku parce que graisse bi nek ci biir bi. day mobiliser wu. alors que so togué faax sa biir canapé rek. graisse bi du mobiliser wu graisse bi day accumuler wu. motax nit yi di am biir bu reuy ñu foone ne ñu ngi ci ñoo ñoo ko yor <laughs> yore ñu dara de. waaw ñu yoree maladie bi donc boobu mooy benn. Mm. <laughs> mooy diabète moo xam ne nañuy wax diabète insulino résistant enfin non insulino-dépendant mm. avec insulino résistance c'est-à-dire que actuellement mm. ñooñu foog ñu wàññi seen graisse foog ñu perdre poids moom laa la wax sànq par lekk bi ak bouger bi ok à ce moment là ñoom franchement def nañu pratiquement moitié wu liggéey

xam nga kooku frustration la. dana war voilà parce que nu mu metti metti metti biir biir la rek. Hmm. à un moment donné d' accord bu gars yi desalee di nga yoos yoos nank dem tibb ay ñaari kuddu ñëwaat toog. Hmm. te doo ko wax kenn donc balaa loolu nga lekk tranquillement d' accord naan say ndox éviter boisson sucré yi parce que boisson sucré yi tamit day jokk sucre gi ci baaxul. Hmm. d' accord léegi nag de temps en temps soo amee benn invitation ah mun nga def benn écart enfin benn entorse hmm. parce que parce que nit moom mënul toog rek di def régime tout le temps hmm. d' accord léegi soo defee benn écart nga xam ne fii kat ëppal naa lekk naa ceeb ah bi yoon moom ëppal naa lekk naa un peu trop hmm. waa yow lan moo la tere nga jël say jogging nga jël say basket nga ne maa ngi doxi parce que soo doxee di nga éliminer loolu excès boobu et qui plus est di nga commencé perte poids te actuellement am nay garab yo xam ne timbali dimbali ci perte poids yi kooku sa médecin hmm. traitant wala médecin spécialiste yi léegi mu ngi commencé am hmm. koy commencé am Sénégal de plus en plus ah maa ngi di sant d'accord et ñooñu hmm. nañ la mëna a dimbali pour jox la ce traitement normal motax ma leen di inciter nak ñu dem endocrinologie ak diabétologie nek Sénégal ñu ngi commencé bari d'accord? Mais te ñooñu spécialiste yooyu Mm. xam nañu traitement yi leen war a jox. Mm. mais xam ah. dëkk bu mel ni ah. Sénégal moo ñuy permettre euh, ñu dugg biir euh, Sénégal dëkk mel ni ah. Sénégal tey euh, faju fa est-ce que yomb na. <laughs> boo amulee xaalis faju bi yóbbuwul Seydina xam nga mm-hmm. dañu amul sax lu may wax ni xam naa bëri dinañ mën a duñ ma d'accord ak man mais soo xoolee bu baax. Mm. suñu politique de santé moo demoon noonu xam nga ñun dañuy def copier coller rek. ñu tubaab bi bàyyiloon fii hmm. déebu ñu ko adapté suñu réalité économique hmm. c'est pas parce que euh, maa ngi France que li français yi def yëpp lu baax la hmm. non parce que man nu may fajee damay xool fa maa duggee ak lu ma culture boobu joxee ak éducation bu ma fa jëlee ak xam-xam bu ma fa jëlee woon d'accord parce que ñi ma jàngal xam-xam nañ ma jox dama ñëw fii complété jàpp ci ñaari léegi nag noonu laay fajee ñu si voilà donc ñun problème bi mooy c'est que boo feebaree tey Seydina hmm. soo nekkee fonctionnaire foog nga dem xaw fan ban service jox la imputation budgétaire nga ñëw joxe ko hôpital ak yooyu mais yooyu <laughs> mënul dem. parce que yow tey ñaanam la ko yàlla wala man nii sax man exemple ci man lay joxe comme ça au moins kenn du am ma ñëw nii par exemple Sénégal. Hmm. am infarctus wala dem hôpital principal wala dem hôpital beneen hôpital. Hmm. léegi ñu xool ne urgence baa ngi nii taxaw na. Mhm. nit ki dafa amee infarctus. dañ ko yóbbu service cardiologie cardiologue de garde bi. Mhm. ñëw rapidement def examen yi mu war a def électrocardiogramme échographie cardiaque dugal ma salle coronarographie dilaté dilaté ma waa ji nekk ci poste bi déjà. couverture yooyu ñëkk laaj ak xaalis de. moo may jëkka ne ani sa couverture.

ni ki su amé infarctus du myocarde war na mën wo SUMA hmm. service d'urgence ñu mën commencé commencer def les premiers soins à domicile ce qu'on appelle la prise en charge préhospitalière hmm. gis nga bés bu ñu amé Sénégal prise en charge préhospitalière adéquate hmm. day yombal ñep parce que nit ki faut amener prise en charge hospitalière exemple bu mu la infarctus du myocarde mm. mais d'autres, waa ji dootul jaar par les urgences c'est-à-dire que d'autres gars, ça par la porte mm. parce que waa ji ou ou le sami bi directement contacter mm. essentiellement une plateforme ce qui se fait ici hein et je trouve que c'est très bien moi, d'un exemple plateforme au SAMUBI voilà j'ai le docteur Carvalho hmm. qui a fait un infarctus il habite à la SICAP hmm. numéro tel Dakar le plus proche par hmm. rapport à SICAP pour évacuer par exemple hôpital FAN le service de cardiologie ba d'accord médecin de garde médecin de garde place les régler fekk yow balaa ngaa ñëw fekk sa lépp pare. nañu parce que équipe de garde maa ngi taxaw. Hmm. mais yow normalement tey nit ki day ñëw am problème. ñu renvoyé rek renvoyé hôpital boo dem ñu dàq la bu si des. ñu dàq la ba nga dee ci yoon bi. parce que je me rappelle amoon na ay jumeaux yu accidenté woon benn. booy waa yu doon doon dénoncé. seexam bi noonu la ñàkkee bakkanam. dafa ñaaw tamit il faut ñuy xool tamit Sénégal lu muy doxee. te dara du ci fekk kenn. Hmm. du toog ne man liggéey bu la ma sauver ay vie j'ai failli à ma mission hmm. yow nit ki ko gérer après mbokkam xam nga Sénégal ay ndimbal dañu hmm. nit ki su amul sax dina dem ay porte à porte finalement am son bi fay hôpital hmm. d'accord mais am vision politique il faut ñu que on parle du ministère de la santé et de l'action sociale ah

man man ci man mm. parce que zinga dañuy jàng bitim réew ñëw Sénégal pour changer de bi Nous xam ne ñun parce que ñun ñun ñun dañu mm. xam nga mais zinga ñooñu ah man dama leen fang zinga mm. koo ci jox marché bu mel ah, la ko régler en moins de vingt heures. je mets ma main parce que booy dañuy dañuy ay université yoo xam ne hein? mm-hmm. mais doo xam. kon manque de Sénégal au niveau du au niveau du man xel suñu dëkk bi. Mm. ñooñu ils font ça hein, ay ay gars ci forum ingénieur mm-hmm. mais parce que ñëw ay forum de la scène avion bi wala ni wara nek Sénégal tok fa c'est pas ça le plus important. Hmm. booy bo ñëwé di leen di convoquer rek ñoom c'est parce que tu as un but bien précis bien déterminé. Hmm. et so paré réunion yi tu en prends une dizaine. nee leen yéen dama bëgg ngeen régler ma tel ou tel problème. Hmm. booy dinañ ko joob régler ko rapidement kooku c'est facile. carte vitale puce la rek. <laughs> information yaa ngi ci biir. oui booy yi fu mu ne nii may yow mu ne la informatique booy yi dañu aay de. <laughs> dana man def ma wóor nekk sénégalais boo ci jox mu nekk ingénieur ci domaine boobu. Mhm. na la liggéeyal affaire bu mu nekk kekk sauf que gars yi ñoo amul envie. t'imagines que manque de volonté politique la ciy la ciy seetlu. voilà mais que man j'ai quitté le Sénégal ça fait 33 ans.

yow information yi mu ngi sa portable mais imagine toi nga ñëw seet ma ma nekk médecin à Dantec nga seet tantek, ma bind sa fiche Dantec nga ñëw seet clinique sangam xamatuma lu ma bind ci yow parce que entre temps y a beaucoup de patients que j'ai vu alors que su ma ko dugaloon sama ordinateur soo ma ñëwee fekk si clinique sangam damay ubbi sa fiche rek. Hmm. lu ñu waxante woon tantek. mu gis naa ko. donc continuité des soins bi day am. mais loolu lu yomb la. am na solo. en tout cas suñu suñu suñu suñu waxtaan xanaa day ñëw si dernier point bi nga xamante ni moo tamit bokk na ci lu waral waxtaan bi tey jamono bii wax nañ ko sànq ci mooy feebar bi nga xamante ni tey ji moo lëmbee jamono muy coronavirus Covid 19. tey ñu ñu ne en général ñuy am jabet yi tamit daf leen di faral di sonal ñu ciy mucc daanaka du du di nga am moins de chance pour gën mën cee génn tey mën nañoo wax ni ban jamono ngay amee feebar bi euh, coronavirus nga am ko tamit mu sonal la. alors man suis suis spécialiste coronavirus donc affaire coronavirus je ma parce que je suis infectiologue je suis pneumologue je suis réanimateur. Oui, diabétologue bi moom bi bi dina contre, par contre. Mhm. question bu ma posé ci affaire diabète ne effectivement dans la ci je suis mhm. publication article yi am fii temps yëpp. Mhm. diabétiques ils sont à risque pourquoi. parce que diabétique waxuma affaire virus sax ni quoi que ce soit. taux de sucre dafa yéeg. Hmm. mais si nga bactéries ak virus yi. Hmm. ils se essentiellement de sucre. foofu la wax bi yegg. pour gàttal. si nga boo jëlee benn dafay boo defee benn prise de sang nit. Hmm. boo xoolee deret bi boo jëlee prise de sang bi deret bi boo ko yóbbee laboratoire. laborat laborantin bi technicien laboratoire bi di def analyse pour set ndax yow am nga euh, euh, ni ñu koy waxee am nga euh, infection urinaire wala am nga infection ci sa deret mm. deret bi wala wala wala saw bi mm. daf koy tuur ci benn boîte bu ñuy mm. wax boîte de gélose gélose benn gel la bu am ak sucre moo tax ñu ko wax gel ose boîte de sucre bobo bon boîte de gélose bobo d'accord accord. Hmm. boko ci dugalee waa ji daf ko fay bàyyi. Hmm. le lendemain mu ñew day xol ak bëtam ni su gisee ay tipp tipp yu weex. Hmm. mu né ah fi amna germe mu jox ko ki di xol ci microscope pour que wadi xol ban germe la. légui né résultat bi germe sangam la médecin bi yónnee ko ko ci ordinateur am moo affaire ordinateur bi neex hmm. laboratoire bi yónnee ko ci ordinateur bi hmm. médecin bi gis ne que sama patient bi bi germe la am hmm. ma jox ko tel antibiotique gis nga su ñëwee par exemple lendemain ci su dara mu ne c'est négatif yenn saa yi nag mun na toog deux ou trois jours di xool noonu ndax germe bi na kii lu tax germe bi di feeñ parce que germe yi dañu bëgg suukar Zinga vous boo des germes léegi benn germe ci benn diabétique bu am plaie. Hmm. boo koy saggan nga prélever tu auras des millions et des millions de germes Moi par exemple les patients diabétiques qui am euh, euh, jàngoro ki seen tànk. Hmm. d'accord? accord nañu gaaw spécialiste. parce que si une photo qui dit 24 48 24-48 heures. nous, hmm. affaire bi commencé ñuul ñu obligé ko dagg loolu moo tax hmm. fii diabétique yi ñu leen dagg donc pour revenir à ta question bactéries yi ak virus hmm. suukar rek nañu donc diabétique boo xam ne équilibré wul suukar bëri na bayre de ah mu ngoog <laughs> ah yow xam nga xam nga ko bu baax yow nit soo sonnee lan ngay dem si du suukar pour am hmm. lan énergie bactéries yi itam nañu soxla seen énergie fuñ koy uti ci suukar comme ñun rek ce sont des cellules ah et nous on est un tas de cellules ok voilà c'est pas compliqué donc les gens qui fu actuellement à Covid 19 les ñu sont nii. Hmm. diabétique nous yoo xam ne dañu parce que si nous équilibré le virus bi virus leen di gaaw a yàpp. bu hmm. daaneel leen raccourci bu pour que mu yomb pour que suñu auditeur yi mën comprendre. tout simplement que waxtaan bi li mom leer na yomb la. Hmm. voilà pas besoin de faire des élucubrations scientifiques. Hmm. di wax ay ADN fi jaar na foofu yooyu yëpp day comprendre compliqué ñu comprendre lu ñu ko. Hmm. d' accord lu yomb la gars bëgg xam. bactéries ak virus dañu bëgg sucre. parce que dañuy bëgg énergie énergie mooy tax ñuy bouger comme nit nit comme nit njaay nit njaay soo moo tax ma leen sànq pour diabétique yi mun ñu leen interdire ñu lekk sucre bien sûr sucre nii non mais qui ceeb bi mburu bi ak il y a du sucre. donc mm. ils ont besoin d'énergie énergie sucre, suukar bi daf ñuy jox énergie voilà. Mm. donc à partir de ce moment là. ci mm. question boobu ma laaj noonu. ci affaire Covid par rapport au diabète. ah diabète yi kii bu ñu équilibré wul dé, ah xanaa ñaanal ñaale rek ñu bañ a am problème. ñu pas a am problème kii Covid parce que sinon bu ñu ko amee rek. ñoom ñooy gën a am problème rapidement. dëgg la voilà donc daal euh, yàlla nañ si yàlla musal euh, ñëpp daal ñu tëdd yàlla na leen yàlla euh, fëgg seen bopp ñu jug mën a delluwaat suñu seen activité jàngoro bi tamit yàlla suñu borom jugal euh, ko ci àdduna bi tamit ba ku nekk mën a delluwaat say activité waaw docteur euh, laata ñoo jeexal ak yow tamit euh, du ñàkk taw ñu laaj ay gis nañ tamit ay action yi nga xamante ne yaa ngi koy def pour jàppale waa force Covid mën nga ñoo ñëwal ci action yooyu balaa ñoo jeexal émission bi waaw action bi en fait du man maa ko initié hein. hmm. waaw parce que waaye fos nga ci nag de fos nga ci de parce que waaw man maay seen maay seen grand moo tax ñu tegal ma ko <laughs> ok parce que force Covid 19 bi hmm. voilà ay jeunes ñoo ko ñoo ko ñoo ko initié hmm donc ma ma avec euh, association Diaspora Santé Sénégal pour me jiite fi Marseille. Hmm. donc euh, on a pu récupérer l'équivalent de 18 700 euros. Hmm. et donc euh, voilà quoi donc les xaalis nous hmm. nay des masques Sénégal. à peu près plus de 25 000 masques Sénégal donc nous ko distribuer ci Tiffany ci fan nañ région Louga Tambacounda parce que tout simplement Tambacounda dafa sore. Mm. et même suñu amee dotation ministère bi ñun bëgg nañ leen euh, par rapport à au fait que nous sore nañu amee nañu ay cas. et Louga tamit parce que tamit Louga euh, kay tam bari nañ fofu mm. même si le ministère waree mën jappalé ñun ñu ñëw yokk ci leen yok yok leen doli dal doole du dara pour personnel soignant voilà mm. parce que parce yi nak pour personnel soignant bi la. parce que gis nañ ko ay nay personnel soignant fu mu leen ñu xamné commencé am. Euh, yi ñuy am ci Covid bi. Mm. loolu nag euh, jaaduwul parce que ñoom ñi dañu nañ fi faj ñi ci. Mm. donc ñoom waruñu feebar parce que ñoom suñuy feebaree rek ñu jaaxle. Mm. parce que personnel soignant ah, yi. pour que personnel soignant yi mën a voilà ñu mën a aar seen bopp. am seen matuwaay comme ça au moins ñu mën a toppatoo correctement donc action boobu daal vraiment maa ngi waa diaspora yi dugal seen loxo ci biir barewuñu nag parce que bëggoon naa ñu gën a bare loolu. Hmm. mais quatre vingt personnes rek ñoo ci mun a ñoo ci mujj participer. Hmm. alors que ñi nekk sénégalais yi nekk diaspora bi quand même yaakaar naa ëpp nañu cent mille. Hmm. mais bon yoon du benn xëy na prochaine fois bi nañ ci gën a mun a dugal seen loxo. et puis voilà moo tax euh, ma bëggoon la wax juste action boobu quoi. jërëjëf docteur ana yooyu kaddu yéen kaddu ngay jeexale. non ah di di di di di sant suñu borom. di leen ñaanal encore ci weer bi ah hmm. borom suñu borom nangu nangu ñaani yëpp hmm. et puis surtout surtout sama mbokk sénégalais hmm. fu ñu nekk ci diaspora bi wala ci Sénégal partout daal doomu aadama yëpp nañu def attention geste barrière yi leen laaj waaw ah, maa ngi sukk di la ñaan raxas leen seen loxo bàyyi leen di nuyonte bi bàyyi leen rassemblement bi jël leen seen masque yi léegi masque tissu am na d'accord pro sàmm leen seen bopp comme ça ngeen sàmm askan gi sàmm seen njaboot d' accord comme ça feebar bi gaaw jugee hmm. mais ngeen di toog rek di def loo xam ne moo leen neex. Hmm. a ah, après dañuy am ay cas rek ay eh, gis ngeen ko ci ay Italie gis ngeen ko ci gis ngeen ko ñu fii France sax. Hmm. ah feebar mu méttee te kooku moom ken ñaanu ko mu yëkk Sénégal quoi donc vraiment. bu ma amoon kàddu mu leen di jox daal sama mbokk yi. recommandation bi daal mooy loolu daal raxas leen seen loxo lu ngeen laal raxas leen. fu

xam-xam laa ko tuddee xam-xam voilà loolu moo tax tey ñu daaw fii si ëttu xam-xam fii ci Sénégal Actu point com mbokk yi tam yi ma leen di gërëm baax di leen jox dig daje ci beneen numéro ak ci beneen émission beneen gan tamit jërë ngeen jëf Sénégal actu.com